allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamati salaatu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraata almustaqiim siraata alladiina an'amta alayhim ghayri almaghduubi alayhim wala ddoon إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 yaslawnaha yawma ddiini wa ma hum anha bi gaa'ibiin wa ma adraaka ma yawmu ddiin summa ma adraaka ma yawmu ddiin yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma'idhin lillaah. Allaahu akbar. Allah. أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yowm ddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim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 xatta nalqaaka raadina mardiyina amin ya rabbal alamin allahuma bi aqwatillahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayidina wa moolana muhammadin wa alihi wa sahbi waxfir li wa liwalidaya wa lilmuminina walmuminati walmuslimina walmuslimati alaxyaai minhum walamwaat wa habli abdika wa xalilika wa xabibika wa xadimi rasulika sal allahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa barak